gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi delloo sant Serigne Touba di ñaan suñu borom mu fayal ñu suñu jàmbaar ja muy a Cheikh Abdoul Khafour Mbacké moom Mame Mor Diarra di ñaan suñu borom ci kàttanam njabootam fi yëpp ànd ci gannaaw sëñ Moussa Mbacke imam ba liñ bëgg a yéene liñ yéene liggéeyal sëriñ bi ñu yàggale ko ak sago di yëkkati nag suñu kàddu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jiital nag ci nuyoo bi ki nga xam ne tey moo fi nekkal xaadimal Moustapha muy Cheikh Mountakha Bachir. ñaan yàlla yàggal ko fi mu ànd ak wér ak mboolem ay rakkam ba naal yi naal yëpp ñu yeggale ko te ñu bokk ko ñun. di nuyoowaale it mboolem lislaam bi ndax fu fi xalifa lislaam nekk rek yaa ngi ci tool bi kon ñoom ñëpp ñoo bokk yéene. fu xalifa nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal nuyoo bi nag kii nga xam ne tey moo fi nekkal sëñ Cheikh Thioro yàlla nañu ko yàlla fayal bëgg na kon ñu xam ne jataay bi ñi fi teew ñàpp jataayab lislaam la doy na ci na tey bun na sëñ Mor Sakho ngi di toog di doom ci suñu wayjur di Baye Lamine Sakho moom suñu maam Aliou Sakho mel na ne jolof yëpp ngi jolof nag ni ñu ko waxee aw tund la tund woo xamee tamit la mu ëmb bari na loolee li muy bari bari bari lépp it nag jaawaatlewuñ ci lan xam nañ ko xam gu wér ba tax na lu ngeen nekk danañ ci nekk ak lii ngeen def suñu xel sedd na ci te xam na ne it sëñ Cheikh Joore la wóolu gi mu leen wóolu ba fab lépp teg ko ci seen loxo liñ ci bëgg it mooy danañ ci ànd ak yéen ba lam leen joxoñ danañ fexe ba ngeen yegg ca te bañ a am menn ndox kon nag yal na yàlla def barke ci liggéey bi def na ko ci sax naam ndax liggéeyal sëriñ bi yomb na waaye sëriñ bi liggéey loolu nag moo jafe kon yéen bu ngeen amee lu ñu mel di wax ci Mbàkke Baari Mbàkke Baari sëriñ Touba waajee fa wax nañu ne it ne bi maam maaram sañcee Mbàkke Baari jóge na fa sanc Mbàkke Jolof jóge na fa dem sanc Mbàkke Bawol gee liñ ci nettali léegi dégg nañu ko nattu yan ko ca tegoon it ba mu ñëwee ba Mbàkke Baar yi ñeenti fan ci weeru safar mu génn kër ga amatul ndigal ak duggaat ci biir fukki fan ak ñent defaat na ko ci bitti muy fukki fan ak juróom-ñett loolee ca la liggéey ba tàmbali leen ko ci waxoon it benn kii di sa najaay di sëñ bi yegg na ci suñu borom foo xamante ne fii lu mu ñaan yàlla dana ko may te nattu yi ñu la nar a teg bu ko fekkee su doxee sa diggante ak sa borom dana la ci gàllankoor keroog bi nga xamante ne bii jógee na fi la xam na ab liggéeyam tàmbali na ci la jógee nag Mbàkke Baari dem di jaale ji Mbàkke Bawol waaye ca nattu it Mbàkke Tuubaa dootoo ko tegati bët ca la bokkoon wax nañ ma it ne bi mu ñëwee ba tollook Mbàkke fab na kaala ga doxali ko digganteem ak Touba ngir bañ koo tegati bët bi may wàññeeku noonu la defaat kon kooku xam na lam doon def xam na lam doon yëngatu xam na lim ñu doon wutali kon nag bu ñëwee jot ci nan xam nañ koy téye ndax lu fi waay mën a yor sëriñ Touba la ko jox. nit nag su fekkente amul lu dul lenn te kenn ku ci nekk tey bëggoon ko su ko amee nii ngeen def rek lan war a def. mooy na ngeen takku na ngeen am fit na ngeen am fulla te xool ci ñi nga xamante ni ñu ngi dox Serigne Touba liggéeyam bii da koo caaxaaniwuloon te seq koo nag kenn moom rek nag la woon kon la ca sëñ Abdoulaye wax nan ko may xel na leen góor góorgóorluwaat sax ci njub nangoo liggéey te nangoo jaamu yàlla Serigne Sang fi nag li ci war lépp dana leen ko wax ñun danoo bokk nekk fi ci Ndakaaru rek bokk Jolof mun leen a def lu ñu mel te duñ ci ñëw loolee moo ñu fi téye woon